ci wëllëre. maa moom sëñ loolu it ñu jàpp mu téye ko noonu. doxub doxub diir. jub tax ma jub ñëw gànnaar si ma yenn ko. waxtaan nag man loo xam ne. booba mu koy wax ak man. Hmm. booba booba booba booba booba sëñ ci moom. Hmm. Hmm. wax loo xam ne. ci boppam. gannaaw ba. yëngu-yëngu yëpp. booba la xew. kon man yëngu-yëngu bi. Hmm. bettu ma. wax hmm. hmm. wax na ma man loo xam ne. yëngu-yëngu bi. lépp gannaaw loolu la. te loolu yàlla ko dogal. ci moom. moo xam li muy def. dëgg moom moom atteem itam. kenn du ko atteem. moo xam li muy def moom moom atte bi. lan ma nettali ci boppam wóor na ma ne. dogal hmm. na suñu borom bu mu dogal ci moom. tigi tigi. yoonam nekkul ci. tigi waaw nag mooy yëngu-yëngu bi. tigi li mu nekkoon. ban ni mu ji borom. ma wax. mu na ma ne yëngu-yëngu bi. ca loola la jógee. Hmm. doo ko nettali mukk maa ngi ñaan yàlla may ma kàttan. Hmm. ba nga xam ne danaa ko fa dencal. ko jërëjëf moom ngir noonu la demee. lii ngeen def nag. Mm. liggéeyal ngeen ko liggéeyal bu rëy. boo xam ne. Mm. genn wàll wàll wàll wàllaat ga sax mën leen koo na ci teewam. da ngeen wax bi. Mm. liggéey bu rëy ngeen ko liggéeyal. ci fan yi ci jamono ji jamono yi mm. nga fii li mm. ngeen toll rek liggéey bu rëy ngeen ko liggéeyal mm. boo xam ne bu ngeen dëkkoo nag moom ay ay ay ati ati di ko liggéey itam la la la la mu ciy jëlee ci seen liggéey bii mënu ko am mel na dara bu ci jóge coo coo moom ni ma liggéey bu ngeen ko liggéeyal fii bu ngeen bu ngeen nekkoon nag moom ci dundam yëpp di ko liggéeyal lan ko ci la la la liggéey bii ngeen ko liggéey. li mu koy jëriñ. Mm, mm. booba dara yem ci ko. Eh, jërëjëf Mbacke jërëjëf ngeen xam ne noonu moom liggéey ngeen ko liggéey bu rëy fi mu ne. da mm, da xam na njëriñ yi xam na njëriñam. jërëjëf Mbacke xam ne loolu lii ngeen ko defal rek ko mën a loolu moom noppi naa ci foofu laa ci yem am naa liggéey boobu ngeen ko liggéeyal nag hmm. ci fan yi hmm. liggéey bi ngeen ngeen ko ba noppi hmm. leen tawfiq la leen ndimbal tawfiq ndimbal la alhamdulilah ko liggéeyal ba noppi nag diiru yéen a ngi dëggu ci lislaam di dëggu ci sëriñ Touba liggéey boobu da koy fekk alhamdulilah ngeen koy ngeen ko liggéey boobu am na lu ciy jóge di ko ci fekk jërëjëf mënu ko du ko wecceeg dara. jërëjëf nag jërëjëf nag. dégg ngeen wax. dëgg la bu baax nag. noonu rek la dem. jërëjëf nag jërëjëf nag. moom su ci moom coobare. Hmm. Hmm. bu bàyyi nu fi nag nu nekk ci la nekk ab aw jàmm la. Hmm. yàlla dañoo bind di jaam. bind mu di mu indi di jaamu lool. jaamu lool gi nee ni ngeen may jaamu. nan dellu ci loolu rek. waaw ngeen nañ ànd dellu ci loolu rek. nekk ci loolu rek li ngeen wax. dëgg nañ ko ok dëgg nañ ko bu baax. maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun la yàlla wax. Hmm. jinne bindi moo leen dara loolu ñu jaamu ma. Hmm. waaw suñu béy si moom. Hmm. yàlla def ci moom la mu ci def yoon yoon génne ko ci. dëgg la moom moom atte la. jërëjëf Mbacke waaye moom nag suñu atte moom. dañ ciy teg suñu bët. dafa jaamu noonu wan wan nañu nanuy jaamoo. muy alxuraan ak sunna. kon nan góorgóorlu suñu képp kattan. Mm-hmm. nekk ci loolu rek noonu. xam ne noo ngi aw jàmm la noo ngi jàmm. Mm-hmm. ci loolu rek lan ko mën a dogoo nag. dëgg la. loolu rek daf jëlee noonu rek ci lan mën a dogoo nag. aw jàmm la noo ngi noo ngi jàmm. aw jàmm la noo mën naa jëfe gi ñu jëfe ndigal. jëfe gi ñu beneen ba ci desit. Mm. Eh, wax naa ko ba may ñëw damaa ñëw ngir siyaare si leen fan ndigal ndax bu ma si ndigalee dabutoon sëñ maa joxe dig ci loolu waaye yaa yaay joxe ndigal. fekk na te démb si laa ko doon woor am bu bu ko wax. Hmm. jotuma ko ba ba boobu mu ko wooyee. Hmm. ñu ngi toog. lépp sama lépp lépp sama borom a. lépp sëñ lépp lépp ak guddi sëñ Tuubaa la. lépp ak guddi sëñ Tuubaa la. Hmm. alhamdulilah dal na xel. dal na xel. dal na xel ci beccu. dal na xel ci noonu. dégg nga mooy ndigal li nga joxe ci moom. leeral naa tey. kon loolu rek la. waaw li ma jox ñu ko. mooy jëf yi mooy liggéey bi. mooy liggéey bi ngeen ko liggéeyal. waaw loolu laa tënkoon rek. dëgg la. ndigal li ma leen di jox ngeen jëfe ndigal bi. loolu mooy liggéey bi ngeen ko liggéeyal. mu amal ko njariñ te mënu ko wecceeg dara. dëgg feegi yéen a ngi ciy nekk itam liggéey njariñ njariñ yooyu la koy fekk. jërëjëf Mbacke te amal ko pas-pas nag di ko ñaanal. ndax ñaan moom yonent bi sax ba léegi ni nga ko nit ñi def saa dara. kon it da ngeen di jëf. li seen seen i lan. seen i jëf. dañ ko ci ñaanal. jërëjëf. ma ne ma ne liggéey li nga. noonu la euh, kilifa dafa mën na ñàkk. te it ànd bu ne faw am ko jiitu. moo tax. ñoom incha allah alhamdulilah. tiituma ci yéen. na ci yéen. jërëjëf waaw ci lislaam ci hmm. ci ci yar boobu rek moo ne ci yéen. Hmm. du dëgg. Hmm. Ah. yar boobu rek moo ne ci yéen. xamu leen leneen. dëgg la dëgg la Mbacke. jërëjëf Mbacke. kon kilifa dafa mu defee ginnaaw yàlla def na si yàlla dogal defee ci coobare. yàlla moo moo moo moo moo leen boole woon nag. suñu mi am na ba noppi. ñu ngi ngi fi. di jaamu yàlla ñu fi nekk ñu war a nekk war a jaamu yàlla hmm. te mbooloo mi ànd nañu ba noppi hmm. nekk ba noppi hmm. loolu kon dafa dul mën a ñàkk njiit njiit loo xam ne day nekk seen kanam di wéy ci ndigal di bàyyi tere kem kàttan la ànd ak ñoom ñu ànd ko ci lislaam mm. ko lislaam diglee seen kenn kàttan mm. ko ànd ci Sëriñ Tuubaa mm. Sëriñ Tuubaa na ci lii rek la na ñu loolu rek la loolu rekk la loolu da ngeen ci def da ngeen ci gën a defaroo njëriñ la di gën a fekk sëñ becc alhamdulilah jëf jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf